extrêmement

ah mu ngi ñëw de mu ngi ñëw de mu ngi ñëw de mu ngi ñëw de ah mu ngi ñëw de mu ngi ñëw de mbër rek génn waaw mbër. ah mu ngi ñëw de mu ngi ñëw de mu ngi ñëw de. mbër kese la ñuy toog ñëw. alma. bu jeex rek jeex na bilaay. Koulibaly waa si réew dañ koy génn Thank you.

Nini? Kuti wa jayan. Ah. Kuti wa. Sen, mo lagi. Ah, awer. Eko. Kuti jayan kra wo gini. Mo ñew. Wa arrière len. Ah, wisal lay gaay xorom. Dene taxaw. ko na leen ragal nga ndeyu jóg ñu ànd ak ndeyu ragal Siteu Balla bi la wala bu ko la yu toog bu yor leen nga teew boy sigi su ma la mbéjee doo def ndànk Siteu Balla